thank you asalaamaaleykum ami fidèle internautes yi taamu di ñu bàyyi xel ci public SNTV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar gisee nañ ko nag ci weekend bi ñu génn moom loo xamante ne nekk na lu jur njàkkare ci askanu Sénégal mooy ñi nga xamante ne waaye ujaaj ji demoon foofu na la ca Makkatal Mukarama demoon ziyaare sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa ba fa tëdd ñoom ñi nga xamante ne bi ñu ñib suwee ñu defar leen ay test ñu gis na ni Covid 19 dafa ñëwaat ñoom ñoo ñëwee dañoo am.

mobilisation forte pour femmes, c'est normal c'est normal c'est naturel plus de 2 ou 3 millions femmes ñu jógee Il y a d'autres maladies outre que la Covid donc pourquoi en parler seulement pourquoi nous wax rek ci Covid La Covid est ci Le marketing est ñu def fu diriger

lu ñu mais feebar la rek dañ jéem a lijjanti nun ko faje rek te wut ay pexe waaw feebar jaaroon na fi sida jaaroon na fi yeneen ak yeneen yëpp tibar ko tout ça mais dañ ko raal ci feebar yooyu rek et puis tout ah feebar feebar la rek mais bu ñu sonal bu ñu sonal ci affaire Covid non non non non wàññi àdde bi moom mënut a nekk ndax ñoom yoruñu vie yàlla moo yor dund d'abord loolu moom dañ koy évacuer loolu mënuñu wàññi àdduna bi tuuti nañ ci seen xam-xam yeggul foofu mënuñu wàññi kenn kenn du romb sa dee loolu moom jéggi nañ ko seen programme lañ am xool nu ñuy seen économie ndax àdduna bi jaxasoo ñu gis ni gars yi leen attaqué partout les pays africains ñu ngi jéem a góorgóorlu di jéem a détaché wu ci li leen tënkoon ak détaillé ak tous les autres pays di cërmoon ñu ngi ciy détaché wu li xew nag ñun comprendre na noot nit rek leen bëgg fi def te ñoom mën ñoo noot nit ñi te ñoom ils sont très non ñoom bariwunu seen propre intérêt la toute l'Europe entière boo ko boolee États-Unis Europe boo ko boolee mais Pakistan leen ëpp kon mënuñu téye monde bi di ko kali kali dinu ñàkkal fayda feebaru caaxaan la ay feebaru caaxaan la de bu amee feebar caaxaan la. non vaccin yooyu seen vaccin la ñu sun yoon ko sen i vaccin na man dama ko xalaat musuma vacciné man ak ma famille xalatun vacciné wu non non duñ ko jël pourquoi ñu koy jël man Covid parce que mënu romb sa bis il faut que ñom ñu japp lolu non du question wolu man sama xel mo nekkul ci pikiiru du question wolu ay wolu tay amul importance man ma pikiiru ba ak sama njabot ak keneen ku ma xam naa la digal buy pikiiru ndax loolu yorul ah, mais yorul suñu dundu piquir bi yorul suñu dundu ñu pikiiru dañuy dee. Nous avons a on des on des musulmans on croit au dogmatisme pourquoi le musulman il croit ce que Dieu dit directement sans réfléchir ce dogmatisme là nous a perturbé ils ont vu la Mecque la mais la cette rencontre là autant de millions de personnes c'est un tas si benn moment jublu ci yàlla loolu leen ne bi di changer monde ko parce que buñ ko bëggee def nit ñi génn ci ñoom jëlee leen fi Sonko ak Diomaye yi ngi gis ni ñu ñu ñu boole suñuy force jox leen réew mi buñ defee erreur na leen fiy jëlee ñoom loolu excès gun loolu ngay wax noonu excès gun mi ngi bu amoon nit ñi duñ ko nangu waaye ku dul ñaxu koo xam moom neen du ñaxu du piqûre lu yoonam ci feebar doo romb sa bis maa ngi koy répété doo romb sa bisu dayee yii yëpp ay caaxaan la ay caaxaan la ñoom nag buñ duggee ci bêtises yi par exemple yi yi defoon bii passé sen affaire la maa ngi jégalu sax ci bêtise ma par rapport ñom ñom dal dundu ci erreur yooyu bu yóbbu ñu góorgóorlu te jema a liggéey mi te baye gafe ak ñoom ñi ñu bon ñu affaireu ben nit mënul ñek di perturber monde bi entre ben nit Bill Gates dugg ci institution internationale bu ko jaxase ben nit il représente pas un pays ben nit la intérêt rek la si programme bu organiser rek pour changer le monde te mënuñu ko changer yalla monde bi kenn mënu ko changer. un échec lamentable échec lamentable la liñ ci séntu woon dara amu ci. dara amu ci si ñoom tax la gën a ñoom Covid bi ay nit ñoo xamante ni na nga ni danoo gaañu def leen ci kees ñu dem sul leen ay fekk fa kees yi vide feebar boobu keroog loo doon arrêté jour boobu la feebar doon arrêté ña nga ni kii ñu def cortège dem di leen suule ñu suuli ñu dajji leen fekk fa ay vide mais adduna bi dafa noon di xool loolu bàyyi ba xam ne ab la kenn nekk wala du feebaru caaxaan léegi lu ñu ci waxaat ay kàcc la dañuy kàcc ñoom danoo kàcc ñoom non danoo kàcc ñoom tubaab bi danoo kàcc ñi fi nekk ànd ak ñoom danoo kàcc ndax loolu rek preuve la nit dee na ñu dugal ko ci ay kees dem di ko yóbbu suuli ñu bare ñu dajji kees yi xool kenn ko ci loolu duy kàcc feebar wur faa yem bu ñu fontoo ci ñoom Sonko nag nag jël seen responsabilité bis bu juumee du dugal nit ñi ci affaire confinement gars yi dañuy ah. ñoo leen fi teg ñoom teg ñu seen bopp ah Sonko ak Diomaye laay wax de voilà baax na ah loolu moom doy na waar luy sama xalaat moom mooy jëlaat suñu matukaay rek comme ni ñu naan def rek parce que instant bi loo xamante ni da toog ba si yàgg ñu jékki-jékki na ne la ay cas amaan na yoo xamante ni dañoo jóge màq ndaale ko waaw doon ziyaara sang bu tedd bi waaw kon moom lu si des moom comme lu daan def rek te lu ñu daan def sax jóguñu si parce que affaire Covid bi moom kenn ku si nekk yéene la si lu bari lu fi jot a jaar waaw lu am solo ba am solo daal mooy comme niñ ko daan moytoo xam naa nag dina ute di laal eau laal alcool xam nga lépp li nga xamante ni muy indice rek moytu ko. waaw te ñu mu dal tam di ñaanal yàlla yàlla defal leen defal leen saafara ñu wér waaw mën a nekkaat seen biir njaboot. waa noo taxawaay bi moom d'abord mooy ñi nga xam ne dañoo jóg a màq te nga xam ne dañoo bëgg affaire nga nale rek yooyu noonu taxawaay bu njëkk bi si ñoom la war a njëkkee balaa njit bi di si jéem a jël ay dogal parce que lépp loo gis lu nekk rek nga koy xoole ni sa bopp quoi parce que tey jii nii da ngay gis ñoo xam ne dañuy jóge màq comprendre nga créer benn ndaje boo xamante ne nga ne la maaxa comprendre nga te si biir loolu xam nga après ujaab ji bu fekkee dafa ñëw moom indaale ko te bàyyi si xel tey jii ñuy ñëw di ko ziare si bu ñu koy ziare si n'est-ce dañ koy nuyu ziar ko xam nga foofu rek lu ne mën na faa am waaw mais lu gën a wóor comme cas bi moom am na nañ ko muñ rek su yoon yemul si benn estet yaa ngi fi tiktok ba ngi fi boo jógee màq bëgg nit ñi bëgg nit nga bëgg a xam nit ñi nit ñi xam ne da nga demoon nga màgg nga def sa vidéo TikTok xam nga dugal nit ñi xam ne jóg nga màgg nga ñaan yéene yàlla moom foo nekk <laughs> boo toogee boo doogee surux sax di ñaan boo génnee sabab la après da nga gis nga ñaan mais ay nga ne la màgg yeeg yooyu noonu instant bi ñu arrêté ko comme cas ay cas dafa am du noonu ah man sama gis-gis boobu non si loolu mooy yoon parce que waru ñoo jógee màgg rek ñëw aéroport bobu non, lañ ci wara yam ñu téye leen saytu leen xol leen comprendre nga ba ñu wër ba wone wër nañ ñu sok leen a ñu dem seen jabot parce que luko ko buñ ko yobé seen jabot dugg seen kër tay ji ni dinañ ko fa walé kenn kenen ko wala kenen léegi nag problème am mais comme démé na non nañ jël seen matukaay rek jël seen matukaay moy ñu nga dañoo ñëw ñu xol leen ni gis nañ ci ñom fièvre bi wala gis nañ ci ñom benn trace ñu leen xol leen comme commencement bi moo doon métti ba Covid bi doon soo génn fii mu wàllu ko fii ñu wàllu ko kii kii kii muy tas léegi am nañ si expérience léegi ñu faj nit ki ba mu wér bu ko defee nga xam après mën a dellu suñu njabootam nga xamante ne nii problème du am quoi. waaw waaw loolu ça dépend rek xam am na yoo xamante ne nii ñi nga xamante ne ay médecins la ñooñu ñooñu si ëpp expérience ñoom ñoom ñoo war a xool loo xamante ne yéen na maanaa rek ah, ñoom ñu jël seen matukaay ba mat sëkk waaw farlu si nit moom boo farloo si mbir rek yàlla mën na def sutura ba nga xamante problème du am kenn ku si nekk ñu jël seen temps xool nu mu waree ñu xool leen ko waaw ñu xoolee boo xam ne gisuñu benn indice gisuñu benn trace pour ñu soog leen bàyyi ñu dem seen njaboot rek affaire non loolu moom aajowul su kii mais comme exemple rek dafa am loo xamante ne nii si éducation la rek parce que tey jii nii Sénégal même bu dul Covid rek dajaloo bi nii rek dafa am yenn yoo xamante ni yu bëri yoo xam ne dañ ko war a di éviter. waaw bi daal rax bi daal mën nañ ko war a gën a mën a moytu mais affaire Covid moom <laughs> buñ ko fi sax jéem a xalaat di ko fi indi parce que teewul Covid moom affaire dóor la woon rek man laa ko jàppee woon. non maanaam comme ni ni bëgg a wax sax. dóor quoi. non bu bëri sax bu bëri bu bëri sax. parce que yàlla ah. doxalin bi moom mooy kenn ku si nekk jël sa matukaay loo xamante ni nii nga koy def mu mën na la muccal nga koy def boo wàccee nga raxasu boo amee alcool nga diw sa loxo comprendre nga même budul dul Covid même bu dara sax nit dafa am loo xamante ni da nga ko war a tàmbal sa bopp dina tax nga mucc waa boo génnee sa kër boo duggee sa kër nga raxasu a loolu yàlla mën na la suturaal ci lu bëri ko ah ñoom nañ jël seen i mesure rek waaw ah, nañ jël seen mesure rek tel tel see taxaw rek xam nga nee nañ dar moom boo koy gis naan moom laam du moom teel ko dogaale rek waaw parce que ñoom ñoom xam nañ waaw te xam nañ fu leen sénégalais yi di xaar si côté bu nekk ñu ngi leen fay xaar waaw te ñoom dofuñu quoi waaw. couvre-feu yàlla tere couvre-feu Sénégal soxlawul non Sénégal soxlawul loolu nañu waxante dëgg rek jàmbaar Sénégal dëkk liggéey la fu mu toll si liggéey la toll. mais couvre-feu tey jii boo ko créé ay yeneen problème la nga fi indi yoo xamante ne nii Sénégal dafa war a weesu fii déggoo lu ma la wax Sénégal waroon na toll foo xam sax si moment bi nii chaque jour liggéey dimanche ak lépp liggéey feet da ngay feetu xëy suba liggéey rawatina nga naan ay couvre-feu ak yooyu noonu xam nga Sénégal dafa toll si liggéey ko parce que dafa metti non non ko fi de. adduna bi rëy na de Sénégal rek la dugg yan dëkk ay France lan gis nga bu ñu fontoo xam nga fonto bu ñu ko def munu mënuñoo nekk Sénégal un an nit ñi ñu tëj leen ñu sonn du souffrir di daj lu nekk dëkk bi metti ndóol nit ñi sonn ay sey tas lu nekk am moo daaneel nguur gi de nguuru Macky Sall bokk na ci li ko gën a daaneel Covid bi Covid bi parce que nax nañ askan wi politique askan wi xam nga doo comprendre affaire yi metti nit ñi sonn bay bëgg a dee ñu tëj nit ñi ci néeg yi yaa ngi dégg wax ji lu bari bari am ci dëkk bi ñu xëy benn jour tey naan ñu ay Covid ay Covid nañ bàyyi tappale yi man nguur gii laay waxal nañ bàyyi tappale yi tappale yi ah? bu leen bu ñu leen dugal ci yenn yi est-ce ma Covid amul amul fi man musuma ko gëm musuma ko gëm Covid moo tax ñaata ñaata nit lañ war a audit ci affaire Covid bi kon ay tappale la woon. mais yow gis nga soxna si tubaab yee ñu jiite woon moo tax. jiite bi ñu jiite woon moo taxoon Macky Sall nangul leen woon loolu nangul leen woon Covid boobu da leen ko nanguloon loo xam ne dañ ko programmé luñ programmé parce que bu ñu bëggee mu jeex dafa jeex bi sénégalais yi fippoo ni Covid dafiy jeex dafa jeex en tant que màggal Touba lu toll 3 millions personnes xaw ma 4 millions daje fa màggal gi passé ñu ne benn nit moo Covid loolu ay fenn kase la buñ bu buñ buñ buñ bu buñ buñ nax suñ bopp nit du jaaxaan di saw. 4 millions personne daje Touba ñu ne benn nit moo Covid bun ñu nax waaye tuubaa gis nga ni muy pëcc xoowee yaa ngi dégg wax ji ah waaw kon bun ñu nax bu ñu sonal gis nga nguur gi actuellement nii xam nga lan mooy priorité jéem a fexe wàññi dund askan wi yaa ngi dégg wax ji jéem a wàññi carburant bi xam nga utal jeunes yi liggéey réew mi stable marchand ambulant yi ñuy jàpp di leen sonal ñu bàyyi leen loolu mooy priorité Sénégal est-ce comprendre nga lu ma la mais ay Covid bu ñu ci sonal di ñu ko wax. ñun taluñu Covid taluñu feebar taluñu dara dañoo ndóol réew mu ndóol lañ nekk nit ñi dañoo sonn boo duggee ci mbeddi ndakaaru yi nii bu ñu añee duñu reer bu ñu ndékkee duñu añ nit ñi sonn nañ trop yaa ngi dégg duñu nag taxaw xeex benn système ànd ak nguur gii fi ne ñu xeex système bi ba système bi jóge fi ñu ñëw taxaw di di ñu waxaat ay waxi Covid yaa ngi dégg wax ji ministre bi fi nekkoon am na lu mu ñam kii fi nekk nii nag na góorgóorlu quoi bañ a dugg ci affaire yooyu affaire tappale yi moom bu ñu ci sax sonal ñun taluñu Covid taluñu ko àdduna bi rëy na trop ñu naan ñu Sénégal dafa am Covid bu ñu sonal mais yow dañoo tëj nit ñi génn di def seen i dil guddi gi ñu naan autorité yi ñu am laissez-passer ñooy génn di dox seen i soxla ñu jël baadoole yëpp tëj leen ci biir kër yi sàmbur moo tax li am am ñaata violence nga gis après moo am ci biir Covid bi ndax lan niñ tëjee nit ñi nit ñu ñoo sonn. bañ bëggee Covid bi jeex Sénégal dafa jeex bi nit ñi poo génn Covid bi daa jeex amul tey amul ëllëg bu ñu sonal man président laay interpellé moom laay waxal de moom moo jiite réew mi waxuma Sonko waxuma keneen Jomaay laay wax man moom moo jiitee réew mi bu buñ leen dugal ci yenn yi de yii yëpp ay programme mu tubaab la buñ leen dugal ci yenn yi danoo xeex système bi ba système bi jóge fi kon nañ góor góorlu ba ñoo dugal ci yooyu ñun tal ñu ay feebar ay kii ah. feebar amu fi tey amu fi ko ñi dem màkka dem nañ màkka siyaare nañ yonent bi ci jàmm nañ ñëw ñu teeru leen ci jàmm dara leen ci jàmm lépp lu luñ fa ñaan suñu borom nangul leen ko yaa ngi dégg loolu mooy li li wér mooy li li doon dëgg lan ay testu tappale la soxna ci gis nga ay testu tappale la yow bu ma xooloon ci yow feebar léegi dama koy gis man boo xooloon ci man feebar gis ko yooyu ay tappale la est-ce que comprendre nga gis nga nit bu ndóolee feebar day yomb ci moom ndóol gi la soxna si am na ñoo xam dañuy dem màkka te amuñu moyen yaa ngi dégg wax ji seen mbokk moo leen di yóbbu màkka fekk avant ñuy dem màkka daj nañ fii coono yu metti sonn nañ bay bëgg a dee yaa ngi dégg wax ji dem màkka ak coono yañ fay daj ñu ñëw jël benn machine te ko seen kaw naan danoo ndóol danoo covid ak yooyu dara jotu leen est-ce que comprendre nga lu ma wax na ñu fi wax fii Sénégal danoo feebar ñàkk a ñàkk rek a boo leen joxoon ñu lekk ba suur jox lan waaye waaw yooyu ay ay tapp si gis nga man mii bu ma toogee fii suba ba 6 heures jaayuma boo ma xool da nga naan damaa feebar ndax fekk dara jotuma ñàkk a jaay la bu ñaari client taxawee jënd jënd bu dëgër rek ma lu ma yóbbu sama kër rek damay firi damay nekkaat yaa ngi dégg wax ndóol moo jàpp sénégalais yi benn Covid dalu leen dara dalu leen dara dalu leen ngu gis nga Covid 19 moo daaneel nguuru Macky Sall comprendre nga nit ñi taluñu ay tëdd ci ay këran ah? di toog ñu liggéey nit ñi xam lu ñu xam xëy dem liggéey parce que Sénégal informel bi moo fi ëpp doole. informel bi ñi nga xam ni tey bu ñu xëyul du ñu am dépasse ñoo ëpp Sénégal te loolu Ousmane Sonko xam na ko Bassirou Diomaye fay xam nañ ko parce que ñoom ci ay dëkku baadoola leen juddoo yaroo fa màggee fa xam culture Sénégal est-ce que comprendre nga lu ma la seen premier campagne fii leen jaar gis nañ ni leen baadoola yi toppee dagg seen liggéey topp leen. braade euh, baadoola yi ñoo doon dem jënd ay bracelet baadoolo yi ñoo doon génn di mars déggoo doomu député bu dee déggoo doomu ministre bu dee doomi baadoolo yi ñoo doon dee kon nañu jug jéem a dox ci dox soxlay askan wi loolu moo ëpp solo pas ay Covid yi ñuy créé yooyu doxul ah. bi xam nga lu ma takk ko ah poussière des fois poussière oto yeeg yooyu moo tax ma takk masque bi ah mais do ay waaw ay poussière des fois poussière oto bi oto yi nii yaa ngi dégg wax ji. may bañ soj yooyu moo tax man ma takk masque bi de mais masque bi ay Covid yooyu taxuma koo takk de amul. gis nga Covid bi caaro yi laa nekkoon man fa laa doon jaayee gis nga ci biir suusu yi foofu day fees dell bloqué mais doo gis ko fa feemar amul benn waaye yow doo gis dañ lu ñu la soxna si déggoo lu ma nañ tawal suñu xel yi lu ñu créé la. bëggoon a jël sénégalais rek tëj leen ci ay néeg teg seen i dil loolu la moo amoon Sénégal mais du ay Covid Covid amul. ay tappale kase la ay tappale kase la jël suñuy milliards naan ay fonds Covid euh, junniy milliards yooyu yëpp c'est faux ay tappale la woon tong naxoon askan wi lañ fi nekkee yaa ngi dégg wax ji jël suñuy milliards tëdd si sàcc suñuy milliards comprendre nga ma wax naan ñu ay da ngeen a Covid da ngeen a Covid jël ay ceeb ceeb yoo xam ne ay tànn la am ak ak i gunóor ñu jox ko askan wi pour wàññi askan wi loolu la Covid amul bu ñu sonal nañu dimbali ngir yàlla rek ci jëmmi yonent bi bàyyi ñëw waxi Covid. comprendre nga wax bàyyi ñu ñun suñu réew ñu stable liggéey ci jàmm te ñu bàyyi marchand ambulant yi ñuy sonal loolu moo ëpp sens wàññi ceeb bi diwlin bi suukar si mburu mi tey jënd naa fanweer loolu c'est bon maa ngi leen di apprécier tàccu tàccu leen mais leneen li des lépp nañ ko wàññi wàññi carburant bi jeunes yi liggéey ci jàmm agression bi wàññeeku ci dëkk bi militaires yeeg policiers yi nañ circuler ci dëkk bi agresseur yi am ci dëkk bi caga ji yi xam ni mu ngi lëmbe dëkk yooyu yëpp nañ fexe mu dañ Sénégal ñu dox dundu dundu dundu bu nice gis naa li ñu def ci tabaski dama leen di apprécier yaa ngi dégg pour ñi dem tabaski ji loolu yëpp kontaan naa nañ ko def màggal def ko gàmmu tata yi ngay gis nii ci biir dëkk bi seen chaise yi ñuy wàññi ci biir oto yi yaa ngi dégg yooyu yëpp na ci état bi wax paas si tata yi seer na yooyu yëpp nañ ci dugg wax loolu mooy Sénégal guddi ñu toll mais pas ay ñu ñuy kereel ay Covid ñun taluñu Covid ñu feebar nit ku nit ku ndóol nag amul lu mu lekk talul ay feebar interpellé nag président man Alassane Anne nekk fii rond-point Liberté 6 man maa koy wax sénégalais yi dañoo vee ndax ñoom kon ñoom nañ vee sénégalais yi bu leen sénégalais yi gërëmee benn yoon war nañ gërëm sénégalais yi junni yoon parce que ñoo leen jox tey lu ñu am fépp fu ñu dem ci àdduna bi teraanga bu ñu am ci àdduna bi ak cër bu ñu am ci àdduna bi Sénégal la est-ce que comprendre benn sénégalais bu am lu ko metti yaa ngi dégg wax ji nañ jug vee ci sénégalais boobu comprendre nga parce que ñoo leen jox teraanga yooyu nous leen gërëmee benn Nous rek Nous ñu gërëm fukki yoon ñun ñoo sommes suñu bakkan nous ñoo génn sacrifié ñun ñoo les suba wuñ dem ji. dégg wax musul am Sénégal en premier tour nous avons xale bu ndaw Nous avons dégg wax ji fal Nous mu kii nag ñoo ko déggandoo dafa mel ni information bi sax am na ñu bëri ñoo xamante ne jotaguñ si moo tax am na ñu dégg suñu micro moom ñoom mën nañu see wax waaye déggandoo nañ ko nag nee na ñii nii daa mel ni li xale di wax rek la woon woon feebar bi nga xamante ne ju bas nekk na mbas boo xamante ne juloon na loraange bu rëy ci kanamu askan wi léegi askan wi dañ kaa weddi gëmatuñ ko jàpp nañ ni lii ab lenn loo xamante ne politiciens yi ñoo ko teg pour le propre intérêt teg si nag ñuy wax nii kii ñi njiitu réew yu bees yi nga xamante ne mooy di président Diomaye ak Ousmane Sonko ñu leen di ñaan ne lii ni piège bi ñoom buñ ci tombé waat te ñu fexe xool nu ñuy doxalee réew mi moo gën ñu nekk fii di fi indi ay feebar yoo xamante ne du jur lenn lu dul loraange ak njàkkare bu rëy ci askan wi di leen jafal bu baax mbokk bi si safoo bi ak taamu ñu wéy leen di suivre suñuy programme si suñuy yeneen édition